بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الإيجاد والقدم ممدنا بوجود البدر ذي القدم ثم الصلاة وتسليم يفوق على مسك ورند على ذي الفضل والقدم وآله المهتدين الخيرة الكرماء المؤتمي سيرة المختار والقدم ما أرعد الرعد والورقاء تنحب من هدي لها وجرى دمع من القلم إخوة الإيمان والعقيدة في كل بقعة من بقاع الأرض السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلد يني دجلو في سفينة FM 98.2 ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di baalu xaq di ñaan yàlla subhanahu wa ci mbaaxam mu boole ñu baal di ko ñaan li nu koy jaamu mu nangul ñu ko ca na mu toll te bañ koo nangoo ci ni ñu toll di ko ñaan it bu ñu ko nangulee mu làqal ñu ko fa yàq àggul ci barke yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen mbokkum taalibe alxaaji Abdoul Aziz Fall moo dellu siwaat ci daara ji ci seen waxtaanu tasawuf ki nekk ci teknik bi sunu mbokkum bopp sàmb si ñu koy ñaanal yàlla tawfiq ñu ngi beral nuyoo ba tey ak ziyaara ak ñaan suñu directrice su bopp di soxna ñu ma ba ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu defal ko tawfiq ak taysiir moom ak mbooleem ñu koy jàppale ci liggéey bi ki noonu it lañuy berale ziyaara ak nuyoo ak ñaan boroom kër gi di alxaaji Cerno Xamidu Baan ñaan yàlla mu defal ka tawfiq ak taysiir ak najaax fa tabaarakallah ñu ngi woon ci suratu yusuf jaar-jaar yi nga xam ni jaar na fa te lépp bokk ci waajtaay bu ñu ko doon waajal pour mu mët góor piir tabarakallah ndax sayid cheikh ahmad tijani si al maktum radiallahu anhu dafa wax ni yàlla bu yónni waaw góor piir lay yónni du fekk ku ñu ni góor la te mu yaroo ci diggante cuuraay ak mburaake mu di ko yónni moom yàlla du ko def góor guy yaroo diggante cuuraay ak mburaake bu yàlla yónni fa la koy teggi moo tax qaalu lawla nuddila hada al quranu ala rajulin min al qaryatayn azim ah ba ka waa màkka di wax naan eh, eh, eh, yonent bi sunu mbokk la sax bañuñu ko topp waaye li ñu naqari mooy lu tax yàlla fekk ko fi muy xale mu bàyyi fi mag ñeeg seen manto seen kaala yi di ko moom ala rajulin min al qaryatayn azim bu fekkente ni mag ña fa nekk ak seen mantoog seeni kaala diggante cuuraay ak mburaake la yaroo waaw leen kenn woowe góor buleen kenn wooye mag waaw waaw tabaarakallaahu loolu sax xale ëpp na ci waxuma laa ku ci màggat moo tax su yàlla yónni rek góor piir lay yónni waaw ay góor piir mooy yombul waaw ndax fa yàllay jaar ak moom yàlla mi bind jaam yi xam na ni am na ñoo xam ni ku fa bëggoon jaar ak ñoom it du sotti ndax duñu la ko nangul waaw duñu la ko nangul waaw su mettee rekk ñu daw bu dee su mettee nga daw nag waaw waaw bu résultat bi di ñëw waaw ñettoog muñ xaar ko mu metti ñu baña daw waaw ñoom la ko yàllay teg ci seen loxo waaw fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin ah moo tax yàlla wax ni waaw como como du ko fa xaar wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru waaw wa maa yulaqaaha illa du xaddin azim ki teg bëtam ci cër bi tere ñëpp nelaw lu dul cër ba soxlawu ko waaw cër bi tere ñëpp nelaw xam ni cër boo leen won budul boobu ñu xeeb ko booba la ñu teg seen bët waaw ah, ka jël bëtam teg ko ci yàlla ni ko dama koy jaay mu ne yàlla jaral na ma waaw ah, wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru waaw ah, ñu joxe njëgg rek waaw ña xam cër ba te joxe njëg gi yàlla nee na ñoom laa koy jox fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin waaw moo tax nga gis fi mu jaar ci formation waaw te bu ci nekk salit loo na góor waaw moo yàlla waaw bu metti bu mu génn rekk yaakaar ni pare na yàlla indi beneen عينك على ان نصر الله قريب جا وفوق وفجور طلع بترافيرسي لك لك بني اوبستاكل لموي جاب مويني سوتينا جوخينا نجيك ndax li ma traverser ah. te sama bakkan xaj ci sama lépp xaj ci ak diggante bi ma ko traversé ni mu yàgge day jàpp ni mbir mi yegg si na ba noppi waaw fekk dund école la la jàngale baa ba nga mokkal ko dese na la siin dese na la mimara tax buñ ca tolloo nag ñoom ñu jéggee benn obstacle ni ah xëy na léegi mbir mi yegg si waaw ah, du ñu yëg lu dul rekk yàlla dugal leen ci beneen bu ko gën a rëy waaw ah, fa tabaarakallah ahsanul xaaliqin waaw ah, yàlla mel noonu waaw góor piir la amal affaire amul affaire ak yaafus waaw tax lanu maulana sayid cheikh ahmed tijani si al maktum radiallahu anhu waxon ci yont yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam ni xeyna rek ñaan yàlla ñaan yàlla yàlla nangu ñaan gi ni ko bu midé dina la jox lem mu bekk moom salallahu alayhi wa sallam mook njabootam fa basharahum waaw mu bégloo leen ñu ne yàlla nee na midi li ñu doon xaar dina ñëw ah fa tabaarakallah dañu toog ba onze rek kaani gu weex xatt ñëw ndeysaan yeneen bi ni yàlla waxuma woon kaani yàlla ni ko waxuma la woon onze heures laa la waxoon te di jotagul waaye diggante fii ak midi nag waxuma la woon lu fi xew waaw <laughs> sunnatullah waaw yàlla loolu ni mu ko neexe waaw fekk góor gu muy waajal ci pénc mu war a yilif góor ñëpp tawaan aw karhan nag waaw ku nangu ak ku bañ mu war leen a yilif waaye mu fexe ba mu nekk miskin ci pénc mi ñëpp yërëm ko ndax jaar-jaar yu metti bu mu génn rekk beneen ñëw ah buy laajte kañ la kañ lay jeex ala inna nasrallahi qarib la ko yàllay wax ñu ko soreetul <laughs> ndeysaan wax na dëgg soreetul ndax bu yàlla dikkee waaw bu nga fàtte li metti li weesu te li des dootul metti kon soreetul gannaaw bu yàlla dikkee nga fàtte fi nga jaar li muy metti metti nga fàtte ko te li des ci sa dund waaw dootoo ci jaar kon soreetul waaw fi yàlla jaarale góor ñi mu dogal ci ñoom ñu yilif ñëpp yàlla jaar fag yont yàlla yuusuf alayhi salaam waaw ah, bu mu jiggi rek dugg ci beneen ba keroog nag ah, tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin frère yi taxaw yaakaar ko frère yi taxaw yaakaar ko mu feeñal jukkoy sang ah, ci wax bi mu doon waxanteeg ñoom ak jëf ji mu doon jëflanteeg ñoom ah, bu amul woon rek yaakaar tas ndax ba yàlla jaar ak moom fa mu jaar ak moom yépp waaw pour su fa jógee waaw lu mbir diis diis diis diis ak lu mbir ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw mu saxoo ñaar moom yusuf mooy di jëlale tey jéggale waaw waaw waaw ku ñu ni missionnaire nga bu ñaar yi newul ci yow doo sori ak jaamu yàlla yi ndax am na ñoo xam ni bu ñu néewee doole seen yitte yépp mooy naka la amee doole ba fayu waaye am na ñoo xam ni waaw ci seen biir néew doole ga ci li ñuy jàng ni ndekk néew doole ah nattu la néew doole ci pinc nattu la waaw moo tax bu ñu amee doole rek yërëm ña néew doole bu ñuy am doole rek di yërëm ña néew doole ndax jaar nañ ci néew doole xam nañu li ci nekk waaw ah, moo tax waaw ah, ah, qaalu tallahi laqad atharaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin waaw ci kan la génne ci ñi woon nañu ko rey waaw ñu dem ba rey ga antuwul ndax yàlla buy dundal waaw yàlla buy dundal waaw waaw dund rek ay am waaw ndax dund ci loxoom la nekk al ci loxoom la nekk waaw tax bu bu bu nekkee ak yow ci ci ci marxalatul xayaat waaw waaw ñi gën a sonn mooy ñi taxaw ni nanu jël bakkan bi ñoom ñoo taxaw ñoom frère yooyu dañu gisee ni rey gi mënatul nekk ñu ni nañ ko génnee waaw nañ ko génnee fii yëpp mu sori bàyyi waaw waaw bàyyi dootul ko gis dootul ko dégg moom it dootul gis bàyyi dootul gis dootul ko dégg ko dem ba jàpp ni faatu na jeex na jàpp ni dara lu bokk ci moom doo ko gisati waaw ah, ah, moog yàlla mook yàlla moog yàlla ba nga xëy taxaw ci kanamam waaw ah, di wut ndimbal ci moom di wut ndimbal ci moom waaw waaw faj atan nga xamni ke nga doon fexel ndax buggoo ko dégg buggoo ko gis moom nga ñëw tey tàllal ko sa loxo pour mu xettali la nga yàlla rek man tallahi laqad atharaka allah alayna li yàlla namoon ci yow te mooy nga yilif nu ba faw tiim nu ba faw gën ba faw waaw mën ñu ba faw waaw te yéene yàlla ci yow mët na waaw adduna du ko yàggee ba doonu yilif sa njaboot rek lañuy ñuy mën a doon waaw wa in kunna la xaatiin alxaati mooy ki xam ni yoon waa ngi nii ba noppi mu lànk bañ ci jaar waaw moo tax ñu ñu ñu jàmbaar lañu de waaw ah, ñu am courage lañu waaw ah, ah, te xamoon nañu ni am na mbir muy xew ñu lànk ko mi ngi nii tey xamoon nañu ko waaw waaye bu dee muxta i nag kooku garaawul ndax moom dafa xamul faf yoon wi ba naan ba ñu naan teggi na yoon wa walla teggiw ko waaw moom muxta i la moom xamul ni woon fii la mbir mi war a jaar yoon waa ngi nii waaye xaatee nag mooy ki xam dëgg yi ba noppi lànk ni duma ko topp waaw ñoom nangu nañu ko tey waaw ndeysaan ah ku xam ni dëgg ngi nga ni lànk doo ko topp ku la ku la ku la yedd wàcc na waaw ah, ku la yedd wàcc na waaw hmm? ku la yeddu wàcc na ku la xas wàcc na ay boo dajeeg sang piir nag du la yedd du la xas waaw ah, day téye sa loxo teg la ci yoon waaw waaw ah, xam nga yoon lànk ko waaw ah, ci yiwam ak mbaaxam lay jël ci sa loxo teg la ci yoon dootoo ko wàccati waaw laa tasriba aleykum al yawma yaxfiru lakum wa huwa arhamu koo gën doo ko ni maa gën ay danga koy won ci jëf ak ci kàddu waaw <laughs> ko xam ni li jëkkoon ci moom mooy xas ko yedd ko fayu sax boole ca <laughs> waaw ndeysaan nga tàpp tàppal ko waaw waaw ko aayul aayul lu aay amu fi lu aay amu fi yaxfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin jàppewuma ko muy dara waaw bu aayee fa yàlla yit yàlla mi nga xam ni ñëpp a xaj ci moom te xajul ci kenn yal na leen yàlla jéggal léegi nag pour mu pour mu pour mu fàtte loo loolu sang yombul sang piir waaw di gi yow ci ñaawteef boo def waaw doo yëg ni xas na la doo yëg ni yedd na la sang piir buy jëflanteeg yow teraanga waaw ah, ah, ah. du la may temps ngay nangu ni ay la yëwoon teral nga ma du la may temps nga di ko sant ca teraanga ja bu demee ci alquranul karim fa yent yàlla Moussa alayhi salaam fekke ñaari doomi yent yàlla Shuayb bi salaam ñuy bëgg wëgg ca teen ba te néew doole waaw ah, ah, waaw te néew doole sàmm sa nekk fa yor doole ah, balaa kenn wëgg ñoom ñu pare mu ni lii injustice la parce que jigéen lañu waaw muy ñëw ci kàttanam waaw waaw wëggal leen tabarkalla tabarkalla waaw waaw waaye li ko ni ko yàlla abordé moo rafet waaw ah, fa saqaa lahuma waaw ah, ah, waaw summa tawalla ila dill baatu summa tawalla gis ba mu leen wëggalee ba noppi xaaru fa ñu koy sant ak di ko gërëm waaw summa tawalla waxul summa nsarafa waxul summa dahaba waaye summa tawalla ndeysaan ah bësante na xolam bësante xelam bësanteeg bakkanam ba li mu leen defal daf ko dugal ca alxasanaat rekk def ko li wajhillahi taala waaye sintuw ca cant sintuw ca ngërëm xaaru ko ci te nit ki néew doole nga dimbali ko yow boo gàttee xel ngay gis ni eh, eh, siggil nga ko te fekk na moom bu dee gor piir sang koy bëgg rey am ñu xam ku leen defal teranga xam ni gor lañu ndax kersaa sang leen di bëgg rey waaye nag su ma tawalla ila dilli yàlla mooy xakim Musa jëf na jëf ji ba noppi fa saasa waaw mu rocceeku ndànk dem ca ker ga toog fa waaw dem ca ker ga toog fa waaw pour lan pour daw ñu sant ko waaw ndax teral gor doy na ci diisaan boo ca bëggee nag xaar ñu ko tagg ma tàgg ma rey nga ko <laughs> rey nga ko ndeysaan ndax pour nag ñu fàtte li fi jaar moom mu daldi dagg waxtaan ba waaw ñaanal leneen yàlla daldi koy dagg idhabu bi qamisi hada waaw fa alquhu ala wajhi abi yati basiran watuuni bi ahlikum ajmain <laughs> xoolal li mu doxale ci diggante bi waaw léegi nag sama mbubb ngi nii yóbbu leen ko ngeen demee ngeen jox ko bàyyi mu raay ko ci kanamam yàlla delloo sil ko gis-gisam waaw wa atuuni bi ahlikum ajmain waaw buub leen seen njaboot yéen ñëpp waaw leen bàyyi indil leen ma tànt indil leen ma seeni njaboot yéen ñoom ñoo dëkk ci kër ga waaw waaw buub leen ñépp indil ma Hmm? ma teral leen boobu leen ñëpp indil ma ma teral leen hmm? ah, fàtte nañu cosaasa waaw ah, fàtte nañu ah, ndax moo leen ko fàtteloo waaw ndax yërëm gi nu yërëm bàyyi ci fi mu toll ak li kër diisaayu kër ba ñuy yërëm ko teggil ko njël waaw bu leen ne indi leen ko te tey mooy malik bi mooy buur bi <laughs> seen njaboot ga fa ne ñu di leen di xalaat tax ñuy dang-dangi waaw ah waaw jóge kanaan ba fii bu leen ne indi leen tey ji ñëpp di sama njaboot waaw mbég ca moomu teggi googu mu leen teggil coono ak tiis waaw moo ko fi doxale ñu fàtte lële bay baa nga ca kanaan waaw wala ma fasalati l ayru qaala abuhum inni la ajidu riixa yuusufa lawla an tufanniduuni allahu akbar la nee ba ba ba bi génnee مصر فصلت العير كربان بجني مصر قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني تكاد واخنا ني كي جيل شيميز بي كي جيل مبومي واخني ما كي يوبول باي بيغلي كوكو wax nañu ni moo indi woon chemise yuusufa ba ñu tappale woon takkal ca deret ñëw ni ko sa doom gaynde ko lekk mu ni haadihi bi tilka ah, mu ni njàqare ak tiisu wi ma tegoon bàyyi ca ba ma indee chemise bi takk deret ni ko gaynde lekk na yuusuf may leen ma ma jël chemise bii tey waaw ah, nga xam ni bu ko raayee ci kanamam bët yi dellu siwaat pour bëggale ko ko pour bàkkaar booba ma defoon yiw wi effacé ko waaw waaw ah, ah. inna alxasanaat yuzhibna sayiaat waaye nit a koy xam waaw ah. nit mooy xam loolu waaw xam ni juum nga nga nangu ko pare nag pour lu koy réparer lu nekk accepté nga ko kooku kooku nit a koy xam naka la ñu misra rek yàqu fa mu toog waaw ah, xëy na ak sët yi ak ña des ca famille ba ah <laughs> xam ni damay bañu waxati rek ngeen ni ma eh, dafa day xetu yuusuf a ngi may xeeñ fii ma <laughs> الله اكبر خيتو يوسف عندي ما يتخان في ما تو تبوبا شميس بي مبو مي يوسف جوخي خيتو خاتم منجيتي لا شك أن القميص waaw yaxmilu raihata yusuf waaw ah, ñoom ñi toog ak moom nag ñoom ño ñoom la xet gi xeeñul waaw ah, waaye moom yaqub xet gi xeeñ na ko ah, mag ñi nee nañu ndaw da yéeg ba fu sore séentu te du gis mag toog ci suuf gis lu bare moytul ma mag de <laughs> mag mu taawu ndono yàlla waaw ah, boo jàppee ni mën nga tappale tappale tappale bu muur yi bëtam def loo ko la la neex da ngay nax sa bopp ah. moom xet gi xeeñ na ko te ñoom xet gi xeeñu leen te loolu tey xam-xam saxal na ko waaw ah, ci jamono bi ñuy dund xam-xam saxal na ni lépp lu bët mën a gis image ba mu amee walla kàddu bay génn ci moom même su fa loola jógee jeexit ba dafay des ci jaww ji lépp lu am jëmm waaw kàddu di génn ci moom son même soo jàppee ni yow loolu euh, détruire nañ ko bu yàgg nekkatul mais bàyyi na jeexital ci jaww ji Ah, xam-xam dem ci loolu sukkandiku ci loolu moom xam-xam sukkandiku ci loolu waaw ba ñuy liggéey ay ay ay rayon ngeen di wax laver dem ci ba nga xam ni tey mën nañ ci sukkandiku ba jot jeexeet lépp loo xam ni dafa ame jëmm walla mu mu mu mu amee kàddu loo xam ni lii lu existé woon ci barab ci waxtu wu nu xàmmee waaye waxtu wii ñu nekk ni jóge na ca barab ba nekkatu fa ñu mën a sukkandiku ci xam-xam boobu pour dabaatal ko pour am ci ay jeexit jëm ci am ci am ci ay jeexit dem lañ ci ba boroom xam-xam yaa ngi wax ni tubaab yi ñu ngi wax ni mboolem mboolem ñi yàlla bindoon te ñu faatu dem barsax ak ñi fi des di dund yépp seen kàddu mi ngi ci jaww ji seen kàddu am na lu ko enregistré mi ngi ci jowwu ji ñoom seen yitte fi mu nekk nii mooy fexe delloo siwaat yooyu kàddu am fexe ba am enregistrement yi ah, loolu dafay wone ni la shay'a yadi'u fil kawn لا شيء يضيع في الكون يلا مين خامني مو بند ادنا بي لي مو ديف تي ادنا بي ييب ميتريزي نكو واتو نكو لو تي ني امنا فمكو كلاسي ودي نيت مو مني جيل لي ني واخ خاج xaj ndax da koy mbindeef la mu yàlla may eh, eh, mu mën a xeeñtu xet mën a topp ay jeexital koy indi rek léegi di ko topploo jeexitu nit tànkam jaar jaaram waaw mu commencé sëgg di fóontu la koy topp di ko topp tànk par tànk ba xëy fekk ko fa mu nekk ah an masafat baida waaw ah, ci distance yu gudd waaw ah, du ji sax mën na am jaar fa fa mu teg tànkam waaye xet gi lay topp ah moom mu mën a dem moom xaj bi ba mboolem xeetu drogue ah, mboolem xeetu drogue mu ràññat la seen seen xat seen façon moom xaj ba mën cee xam loo xam ni nit mënu ko xam tax boo demee ci aéroport yi xaj yaa nga fa nga dem ci frontières yi xaj yaa nga fa lu tax ah li takshifa ay muxaawalatin li tahribil muxaddiraat pour saay-saay si nga xam ni seen yitte yépp mooy rawalee drogue pour mën caa am xaalis waaw waaw waaw xaj yooyale waaw mën a toj seen réseau waaw waaw loo ko làq làq làq làq làq bu ñu yegsee génnee secret bi yàq sa affaire waaw bu dee mbindeef boobu moo mën a dem ci kàttan gu ko yàlla may waaw muy ba muy ba muy xàmmee yooyu xet bay na alaaf alaaf rawaayax nga tegal ko junni xet yu bokkut mu mën ci ràññee bi nga koy wutloo mu topp ko ba génneel la ko bu dee xaja ko mën ah waaw tubaab yi dem tey ba yegg ci ni image yu mboolem ku yàlla bindoon te nga am jëmm ak kàddu ya nga daan génn yëpp tey taxaw nañu nee nañu mënees na ko delloo su ci xam-xam kon jaadu na yonent bu yore ndono yàlla ci kaw suuf waaw mën a am lu mel noonu mbaa lu ko gën tax fa yàqub toog wax ni maa ngi xeeñtu xetu yuusufa te ña mu toogal ñoom xet gi xeeñu leen lu mën a nekk la tabaarakallah asanul xaariqin ah ñu ni nag lu tax ñu ni wala ma fasalatil ayru ba caravane bi génnee misra génnee égypte la yàqub doog a wax loolu ndeysaan gis nga yàlla sunu borom waaw waaw yàlla sunu borom waaw farata rek lay seq ak jàmm waaw lii bégloo yàqub daal mooy xetu yusufa waaw te laata ñuy génn biir dëkk ba yeneen xeta nga fa waaw di bare nga fa tabarkalla tabarkalla waaw waaw moo tax wala ma fasalati l waaw ba ñu génnee dëkk ba rek waaw la yàquba xeñtu xet gi fa tabaarakallah ahsanul xaaliqin waaw wa inna alaykum la xaafidin kiraman katibina yaalamuuna ma tafaluun waaw yàlla ba foofu waaw waaw wa inna alaykum la xaafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ah bo toge tay ñu lay guinnel image yu ay nit ño xamni ken xamul ban at la won ah lu jitu senegal di am indépendance luy guinnel ay vidéo hmm ay nit ñuy wax nga tok ñu lay guinnel ay vidéo première président wu Sénégal Léopold Sédar Senghor nga xam ni faatu na bu yàgg tabarkal la tabarkal la te ñu ko def lan la dañuy jël rek ay caméraman ay photographe waaw yàlla nee na ba ma ko xamee ba ma ko waajalee ci sama wàll kenn xamul kañ la waaw yàlla kaatibiina ya'lamuuna maa taf'aluun waaw ba yaqub waxee loolu nag qaalu tallahi innaka la fi dalalika al qadim ndeysaan waaw tallahi innaka la fi dalalika al qadim ñu toogoon ak moom ndikal yow daal yaa neex yow daal waaw yow daal sa sa sa sa naax gi moom tàggoowul ak yow ba nëgëni yuusufa nga naan xetam a ngi may xeeñ dañ jàpp nañu ni yuusuf jeex na ah waaye fa saasa rek ah fa lamma an jaa al bashiru alqaahu ala wajhi fartadda basiran قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ساسرك آه آه que ni woon may bëggale bàyyi ci chemise bii pour mu far bàkkaaru chemise ba ma ko waxoon ni ko moom la gaynde gi lekke sa doom waaw al Bachir agsi rek daal di ko koy sànni ndeysaan pour gi dal di koy fóon raay ci kanam gi rekk bët yi dellu siwaat waaw qaala alam aqul lakum inni alamu min allahi ma la taalamuun ñepp jaaxle nak ni ah ku ne taf ci gémmiñ mun ya ah, nakam waxuma len ko won waxuma len won ni amna luma sekk ak yalla lu ngeen yegul na luma sekk ak yalla lu ngeen yegul ah, qalu ya abana lana dhunubana inna kunna khatin Ah, jàmbaar lañu de ah jàmbaar lañu de ah, xam yoon lank wàcc ko ah, dem ba nangu ni ndeka wàcc yoon baaxut waaw nga dellu siwaat waaw baax na de waaw moo gën dëgër bopp de wolof nag nee na daw ca ba ngay ami tànk waaye mu des nag mu wax la moom wolof boo dawee foo jëm <laughs> wallaay ndeysaan waaw boo foo jëm wolof du la ko wax waaye boo dajee ak magum yàlla mu wax la ko waaw falamma bada lii annahu laysa mahrabun waaw siwa baabikal xaami madattu yu day yatiin waaw ilayka bi dofin waftiqaarin wa pour lan di tagfira li ya rabbi min kulli zallati waaw kay waaw dajeeg magum yàlla rek mun la dawal yoon waa ngi nii dawal jëm ci yàlla li fekk làqogoo ci yàlla muccagoo waaw waaw bu la ci rëy fekk waaw fa bayna yaday mawlaaya ma waaqifan ذليلا حقيرا مستغيثا لشدتي آه، بولي تي فك آه، آه، بولي تي ري فك را تخال سا نيال تي سوف ني يالا ماغي دارا ديسان qaalu ya abana staghfir lana zunubana waaw ah, ñoom nag waaw ah, ah, waaw ya abana ndeysaan waaw waaw waaw génneewuñu kenn waaw ñun ñëpp tey yaay sunu baay yaay sunu kilifa waaw istaghfir waaw waaw lu tax ñu ni ko jéggulul nu hmm? jéggulul nu waaw <laughs> ah, xam nañu ni mën na ci yàlla lu ñu mënul ci yàlla waaw ah, ah, loolu mag a koy xam àdduna day dem ba yàlla day jéppi nit ñi ba tëj buntam fermé ko ñëpp nag ah jaaxle maanaam ci toll foo xam ni ku mu rus rek mu mën a fëgg mu ubbi moom yàlla waaw ku mu rus rek mu mën a fëgg bunt bi yàlla ubbi ko lu tax fa saasa neewuñu astaghfirullah allahumma ighfir lana yàlla jéggal nu waaye déedéet yaa abana astaghfir lana zunubana jéggalul nu yàlla mu baal nu sunuy bàkkaar xam nañu ni bàyyi mën na ci yàlla lu ñu mënul ci moom waaw ah. ah. waaw ba tolloo foofu seetal ku yàlla ruus rek nga làqu ci gannaawam waaw ah. bu fëggee rekk yàlla ubbi bunt bi waaw kay bàyyi waaw ala ya rasulallahi yaa afdalal wara waaw fa nahnu fi diqin shadidi taraakumi فها نحن في ضيق ولم نرج فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم جاء مولانا شيخ الحاج مالك سي رضي الله عنه آه، في متي بمتي آه، آه، موني خارل ما waaw ma كي buntu ki ها rus waaw ah waaw yàlla rus ko waaw tax mu ni yonent bi yaway afdalul wara yaa gën ci li yàlla sàkk waaw na xaaral ma fëgg sa bunt waaw mu fëgg bunt yonent bi ànd ak yonent bi jëm ci yàlla yonent bi fëgg bunt yàlla ah fa nahnu fi diqin walam narju farijan laa ilaha illa foo natt foo natt diis diis diis bi si weesu na ko waaw foo natt xate-xate yi rek weesu na ko waaw te yaakaaru nu kenn teggil ni ko nag si wallaahi ku dul yàlla te te te te moo tax fekk ku musula daanu ku bëree ba ba ba làmb ji musula daanu nga bëgg ko daaneel dangay ngay sonn rek waaw waat na ci yàlla ni am na ñoo xam ni ni leen Cheikh Al Hadj Malick Sy radiyallahu xam na ci réewu naar yoo xam ni Ah, ñi ñi fi jëli fi di leen yóbbu di leen fa formé kenn lañ leen di wax ni leen bu ngeen demee def leen ko faas muy cheikh alhaji malik si radiallahu anhu waaw ah. chetttt ah, fekk ku bëri ba ub lamb ji musula daanu nga bëgg ko daaneel sëñ cheikh nee kuy bëre kudul daanu bay boo waajal si jël waaw ah. fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin waaye hmm. daal ñoom jàmbaar lañu de istaxfir lana zunubana inna kunna xaatiin xam nañu ni am na lu bàyyi mën ci yàlla ñu lu ñu mënul ci moom waaw jéggulu nu yàlla ñoo tooñ ñoo xam yoon waa ngi ba noppi ñu lànk ni duñ ci jaar inna kunna xaatiin waaye xoolal lu mu ca teg qaala sawfa astaxfiru lakum rabbi إنه هو الغفور الرحيم نعم. نعم. خلال يوسف لم وحد نيوم نعم. لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم فصاصة مم فصاصة للين وخني يرنا لين يالا جغل بدي من مينت دي جامم ak fi ngeen jaar ak man man maa mën a am tey mëtu jé jé jëllale jéggale kon maa ngi koy ñaan moom yàlla mi nga xam ni sama yërmande ci bosam lañ ma daggale maa ngi koy ñaan mu jéggal leen waaye yàqub dafa xam sawfa waaw waaw sawfa astaghfiru lakum rabbi dafa ni waaw dinaa ko def <laughs> lu tax kële fa saasa yuusuf mu ne yaxfirullahu lakum kii wax ni sawfa astaghfiru lakum rabbi waaw foofu la wax ji nekk la wax ji nekk gis nga bàkkaar bi la topp ci musiba ak ñaawteef bi nga def say frère la muy rëy rëy rëy moo gën a woyaf bi la topp ci bi nga jeexal xolu baay weddi ndigalam yóbbe ko fitna ak coona li raxas bële raxasul bii waaw ah, ah, bi nga séq ak say frère li ko raxas raxasul bi nga séq ak sa baay mu gën a diis téeméeri junni yoon moo tax lu ñuy xool la lu ñuy soxla temps la waaw ko bàyyi négocier gi yàlla tax saw astaghfiru lakum rabbi waaw waaw waaw ko négocier ak yàlla innahu huwa al rahim waaw ci moom yërmande ak tolérance waaw waaw mu ne boo xam ni am naa yaakaar ci moom waaye nag lu ñuy négocier la waaw pare na ca xam na ni du yomb waaw du yomb comme na mu yombe ci Yuusuf ak ñoom bii gën a garaaw waaw ñu daal jóg jël njaboot gi yépp nag ànd falamma daxalu ala yusuf awa ilayhi abawayhi ah, wa qaala adxulu misra inchaa allahu aminin waaw waaw day sànn waaw ñu ni ba ñu agsee ci yusuf waaw ah, awa ilayhi abawayhi waaw ah, xam nga ñu nammante ko xam ni gëj nga ko gis ba xamatuloo woon sax nu mu melati moom it mu gëj gis bàyyi ndeysaan ah diggante boobu hmm. awa ilayhi abaway ndeysaan dal di leen taf ci boppam ndeysaan ah ndaw ndaw ndaw ndaw jotaay bu neex <laughs> aw jotaay bu neex waaye am na sax ñu ni waxin wi rek wane na ni xëy na jox gi mu jox cër baay ak jigéen ji yore di taxaw taxawaayu ndey ci moom tey te mooy tànta ci riwaaye ñennat ñi tax toogul xaar leen daf leen teeru ca buntu dëkk ba waaw comme ni ñuy teertoo ñu mag gi ñëpp doo xaar ba nu yegg si sa kër da leen di teeru ca buntu dëkk ba ah awa ilay ah mooy yadullu ala xararati liqaa ah li muxtaribin yajmaahum xanaan ndeysaan ah wane cofeel ak nammeel gi nga xam ni tabarkàlla moo doxoon seen diggante baatu aawaa gi rek moo ko mën a wane waaw ah, awa ilayhim waaw ah, mel ni rek ku songul sa moroom ndeysaan akolaat taf ci sa dënn waaw ah, di tudd yàlla boole ca waaw hmm? wallaay ndeysaan waaw wa waaw waaw leen misra ngoog Ah, ah, waaw entrée ak si leen waaw waaw waaye li ngeen di wax bienvenue ah, waaw ami nii na nag xaw ma fan waaye fii moom du ngeen fi wéet du ngeen fi tumranke du ngeen fi jaaxle du ngeen fi jàq waaw inchaa allah waaw wa rafaa arsh على سرير الملك حسام الله اكبر ورفع ابويه على العرش آه، جل نياري وي جوريا تك تك تكاو سرير الملك حسام وخروا له سجدا ديسان آه، ñëpp ñu àndandoo ndeysaan ah defal ah, ko sujudat shukru wa taxiya waaw ah, ah waaw goo xam ni eh, eh, eh, nuyoo sant yàlla la ak màggale ko kii tey yàlla jox cër te ñu nangul ko ciram waaw waaw nangule ko moom ñii tey yàlla jox cër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 waaye inna rabbi latifun li ma yacha innahu huwa al alimu al hakim waaw ah, ah, Yuusuf ay sang ah, mooy sang waaw waaw bañ ko eh, eh, defalee sujoodu sujoodu taxiya nuyu ko ko ñoom ñëpp mu ne eh, bàyyi bàyyi mu mu ni ko bàyyi sama gént gaa ndeysaan inni raaytu ahada achara kawkaban wa shamsa wal qamara raaytuhum li sajidin sama gént gaa ngi bàyyi gént la woon tey nag réalité la waaw tey réalité la waaw waaw akbar te loolu waaw Yuusufay sang waaw ah, waqad ahsana bi waaw ah, id axrajani min assijni laa ilaha illa waaw ah, xoolal loolu rek xoolal fi frère yi jaar ak moom laata muy dugg prison waaye loolu yëpp jéggi na ko tudd ko prison ba la tudd génnam prison la tudd tuddul ñaawteef yi ko frère bi yu ko frère yi def tuddul ñaawteef bi ko imraatul aziz doon sàkko ah, tuddul ëpp gëñu ko ëpp doole dugal ko prison déedéet ah, baatu fa yakki duul kaydan ji ah, moo lii moo koy dëggal waaw waqat ahsana la ilaha illa waaw ku yàlla teral subhaanahu wa taala waaw nga war a fàtte ñaawteefu jàmm ñu ngi ko seqal waaw ba yàlla tàllal la teraangaam ni la mëngook nag lii laa la yéene woon waaye boo koy jëlee deeti fàttaliku ñaawteef yi la say bokk def doo sang doo sang moo tax waqat axsana bi ah id axrajani min assijni waaw ah. ah. yàlla noppeeg man ndeke lii la ma yàlla yéene woon waaw ah. mu noppee pour jox ma ko génnee ma ca prison ba xoolal rekk xoolal ma lii rekk laa ilaha illallah waxul sax pouvoir bi ko yàlla jox ci diggante bi déedéet ndax sang la waaw sang du tudd cërëm waaw génne na ma prison daal yàlla baaxe na ma beneen teraanga te mooy wa jaa bikum minal badwi waaw jële na leen ca dëkk ba <laughs> indi leen tey fii nga xam ni fii moo gën a dëppoo gën a yelloo ak seen tabaarakallaahu teraanga ah ah teraanga ji ma leen yéene fii mënal leen ko mënal lu ma leen ko fële waaw tey fii la gën a jekke fii la gën a neexee waaw min baadi an nadara cheytaanu bayni wa bayna ixwati mu ne loolu yëpp nag yàlla sunu boroom defal ma ko gannaaw bi nga xamee ni cheytaana mi nga xam ni yàq rekk mooy métier am moo doxoon sama diggante ak samay frère gis nga de waaw teggil na leen diis diis boo xam ni wallay bu ko teggiwul woon gàccaray leen waaye mu teggil leen ko yen ko seytaane wane ni seytaane fi jaar waaye ñoom meluñu noonu waaw min baadi an nadaga seytaan bayni wa bayna ixwati waaye daal lu mën a xew daal yàlla daal bokku ci ah inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa alalimu alxabir innahu huwa alalimu alxakim ah hmm? ah inna rabbi latifun lima yasha ah, ah, ah, ah. latif ah, mooy ko laku laku ah, lu mbir làqu làqu làqu ci ñeneen ñi ah, ñi ngi ah, sew sew sew sew mi ngi nga te it xam nga fan ngay jaar waaw waaw xam nga fan ngay jaar waaw ba li nga namm mooy am ay li nga ne namm du am waaw waaw waaw latifun waaw waaw fekk mbir mu sew ci biir mbir waaw ñu naan dana damm dana damm ñu naan du màgg waaw ah, du màgg ñu naan du dund du dund yàlla topp ko ci lutfam hein ah. waaw ah. di ko rocc ndank ndank rek topp ko rek topp ko topp ko ba xëy la mu bëggoon mu am ci moom xam may na ko ndax wal alim xereñam may na ko ndax wal hakim waaye gis nga yusuf gis nga yusufa fi mbir yi teere ci moom waaw fi mbir yi teere tey yegsi ci moom waaye li ci yéeme mooy nu bu géeg nguur géeg eh, jekku gi mu jekku ñi ko doon fexeel pour jël bakkanam ak ñëpp laa ilaha illallah lépp tey gisu ko lenn moo ko tere nelaw mooy mujj gu rafet mujj gu rafet waaw lii yëpp nga am ko du dara mujj gu rafet nga am solo mu teg ca rabbi qad ataytani min al mulk jox nga ma pouvoir wa allamtani min tawil al ahadis jox nga ma nubuwa waaye nag fatir as samawati wal ard يا فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره أمم. انت ولي في الدنيا والاخره دوينغاما يا اسم ويري واي ادناك الاخره من يوسف لان رك لا لي نيان توفني مسلما <laughs> laa ilaha illallah tawaffani musliman waaw waaw mooy jël sama ruux rek waaw waaw man nattoo mukk nga di ko jël fekk ma weddi la ko jël mukk fekk ma weddi la ak lay ñaan nga defal ma garanti ba boo koy jël rek waaw ah, jël ko ci imaan waaw diggante bi bu ma la fa weddi mukk waaw yàlla ni yonent bi naka mu <laughs> nettali gi ma la nettali fa yuusufa tàmbaleek ay bokkam pexe yiñ ko tëralal yëpp jaar-jaar yu nu jaar moom pour dootul exister ak fi mbir mi mujj tey naka mu yii information foo ko mënoon jële fu dul man fu dul ci man dalika min amba il xayb waaw ah, ah, waaw dalika min amba il xayb yii information ma la jox ca kaw rek la am ah, moo tax nuuxiihi ilayk ah, ma bëgg nga jëlé ko ci man yalla waaw ah, ndax keneen koku ko woon man rek dana wax ni da nga farag yuusufa moo tax nga nettalee ko ni waye li mënul nek c'est pas possible pexé yi ñu fexé fi mu jaar ak fréram fi ghayabatul jub hmm? ah mihnatul jub إبريل بطل نونو محنة محنة الاسترقاق إبريل بطل نيو كي جند موي جام نيو كي جاي محنة السجن ها تي مراوة دابا امرأة العزيز دفل لي دوما كو دف بوكو دفل ماك يولا ها دينا لا توروخال بامي جوغي فا دوجو تي بريزون با yooyu yëpp mu jaar fi ba tey nga ni tey eh, eh, eh, moo yilif ñëpp tey tawan aw karhan ko keneen nett li woon yenent bi ku yàlla ñun dafa farag yusuf moo tax waaye lii yusufa munu ci génn yàlla wone na ni nag a maa la koy nettali pour nga xam ni man yàlla ma mën affaire dalika min anbaa alxayb nuuxihi ilayk waaw ah, wa ma kunta ladayhim id ajmau amrahum waaw ah, ah, waaw fekke woowoon waaw ba frère yi dajaloo d'accord ci lenn nañ ko sànni ji ca teen ya waaw seen sayaan yooyale waaw uhum yamkuruun te dara taxul lu dul fexe rek pour débarrasser wu ci moom ndax daf leen de gêner daf leen teel a déranger moom Yuusuf waaw waaw mu ngoog waaw nag jox naa la ko waaw pour nga jox ko say nit waaw waaye nag wa ma aktharu naafi walaw xarasta bi muminin gis nga fi Yuusufa tàmbalee ki bokkam ba fii mu jeexe li ci nekk ci jàngale ci nekk ci eh, eh, ci ay misaal yu war a mën a tax nit ki sukkandiku ci xam ni ndek ku bëgg lu am mujj gu rafet jëfal yiw waaw ah, te moytu safaan ba waaw ah, ku bëggul yiw nag bëggoo mujj gu rafet nag demal ci safaanu yiw ko malaka joh nuhihi jox nuhihi ilayka malaka jox malako xamal man yalla nga jele ko ci man direct dara yokku ci dara wàññeekuwu ci pour lan Ah, pour nga jottali ko say njaboot waaw waaw xam naa sax ñepp ci leçon waye nak munul nak wa ma aksaru nasi, walaw harasta bi muminin. waaw xirun pun pour ñepp tiire ci leçon yi tamit du nek ñi gën a bare waaw waaw ñi gën a bare duñ la déglu waaw waaw duñ la déglu boo leen koy wax dañu naan léeb ak lippoon la rek waaw waaw moo na waroon nañ la mën a déglu nag ndax wa ma tasaluhum alayhi min ajrin in huwa illa dikrun lil alamin waaw waaw waaw waroon nañ la mën a déglu waaw ndax boo leen ca fayeeku woon ñu jàpp ni sa bopp a tax nga di leen ko wax waaw waaye maa xam ni man rek waaw sama ngërëm rek nga ci jublu waaw waaw maa xam ni sama ngërëm rek nga ci jublu waaw jubluwoo ci nit ñi jox la benn dayoo waaw tabaarakallah ahsanul xaaliqin waaw kon nag wa ka ayin min ayatin fi samawati wal ard yamurruuna alayha wa hum anha muridun ah laa ilaha illallah ko bare na lool ayaat yi kiimtaan yi nga xam ni def naa ko fi man yàlla ah ci diggante kaw ak suuf ah loo xam ni nit mën na ci tiire leçon defar addinaam ak alaxira mu ni ko waaye malheureusement yamurruuna alayha wa hum anha muridun ah yamurruuna alayha wa hum anha mu'ridun waaw ñu ngi koy romb guddeeg bëccëg subaak ngoon wa hum anha mu'ridun waaye amuñ ca soxla ñu ngi romb lii yàlla wax guddeeg bëccëg subaak ngoon ñu ngi romb lépp di ko gis di ko dégg waaye amuñ ci soxla waaw waaw li leen yàlla wax ci ñi daan jëf yiw fa nu mujj ak li leen yàlla wax ci ñi daan jëf safaan fa nu mujj mu ngi fi waaye amuñ ci soxla ah wa ma yuminu aktharuhum billah illa wa hum mushrikuun ah ni ko loo ci mën waaw loo ci mën wa ma yuminu ak aktaruhum billah illa wahum mushrikuun xoolal loolu loo ci mën waaw ah, mu ni ko tey koo ci laaj ku bind asamaan ak suuf mu ni la yàlla ñépp dakkoon nañ ni man yàlla maa bind asamaan bind suuf maa fi def li fi ne waaye nag loo ci mën wóoluwuñu ma doylawuñu ma waaw ah, doylawuñu ma waaw ah. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون دايلو نيوما سوني ما دايلو وون دو نيوما في واتش آه، دم دي دغ خاتم دو آه، آه. نيوما في واتش دم دي فاسي خانج دو نيوما في واتش دم دي سيتي خرمي ها pour mu jox len wala ñu xañ ci keneen ko ñu ma gëmon dañ lo ma waaw wa maa yuminu aktharuhum billah illa wa hum noo mën a def ñu boole ci yàlla ji leneen waaw loo ci mën yow yonent bi yàlla doyatu la nga dem wuti galan waaw yàlla lu galan di mën ci yow yàlla doylootu la nga dem dagg xaatim waaw pour éliminer ci sa adversaire ah pour mu jox la lu lu lu lu sa adversaire amul doy lootu la nga dem seeti xërëm yi mushrikuun doy lootu nu yàlla ah yàlla nag nee na ana agna shuraka an shirk lu ma waaye booleeg leneen ma génn ca bàyyalaak baye lak lola jeex takk waaw bu defé nak afa aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adabillah aw taatiyahum saatu baghtatan wa hum la yash'urun ki yàlla doyatul muy seti lenen lu ko doy yàlla doyatul muy seti lenen la ka doy yaakaar ni mën na ci am lu ko yàlla dul jox hein waaw ah, ku ko ni dana ko fekke <laughs> xanaa xamul ni dundam ci sama loxo la nekk man yàlla ah, ah, kan moo ko ni dana mucc ba jot la mu soxla kan moo ko ni dana ko tal <sighs> afa aminu an taatiyahum xaasiyatun min adabillah fa nga wonee gannaaw yàlla wuti xërëm ba ku la ni man yàlla duma fudd sa ndigg ba dootoo tal sa bopp ah waaw ah, ah, waaw fa nga fa nga doylootul yàlla waaw ah, wóolootoo yàlla waaw bay tëral fexe waaw fexe mu ñaaw waaw ku la ni duma la fa fekk jël sa bakkan waaw boo liggéey looy joxe comme comprendre waaw waaw bu defee nag yow yonent bi tax ma la koy nettali waaw ah, mooy yow bul jàdd yoon bi waaw ah, ah, waaw bul jàdd yoon yu mukk waaw ndax leer na waaw argument yi mu war a àndal yëpp mi ngi noonu waaw yow daal lii mooy sa sunna te neex naa layal waaw ndax kenn gisagul ku dëkk def lu bon ba fayeeku lu baax kenn gisagul ku dëkk ci lu baax ba fayeeku lu bon amul waaw basiraa ngi noonu waaw qul hadihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin waaw ana waaw maa nga ca nag man muhammad waaw wa man ittabaani ak ku bëgg topp ma ci waaw waaw wa subhanallah waaw wa subhanallah wa ma ana min al mushrikin ah ah ah ñi yàlla doyul ba ñuy wut luñ ca dolli ah ah ah keccat ma ca man Muhammad ah man yàlla doy na ma ah ku yàlla doyul nag ba ngay wut leneen loo ca dolli yaa xam man yàlla doy na ma ah, ah ñi yaakaar ni yàlla ah mën nañu dëkk ci def lu ñaaw ba noppi poñe yàlla mu faye leen lu baax ah, ak ñi yaakaar ni. rek tabarkal tabarkal la nit du def lu baax ba am lu baax ñi nax seen bopp waaw subhanallah waaw yàlla melul noonu de ah waaw fa man yaamal mithqaala darratin xayran yara wa man yaamal mithqaala darratin charran yara waaw waaw ku jëf yiw fayeeku yiw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 lañu ko ma ngoog waaw wa ma arsalna min qablika illa rijalan waaw waaw kenn musul gis loolu waaw waaw jeex tàkk waaw kon nag lu metti la lu metti la ma yónni la ci niwt ay nit nga yéene leen yiw ha yene wolen ludul yiw bo sañu ñepp jot ci yiw ba te mëno fexé ba ñepp jot ci lu metti la ni ko wayé jikko ci ah yebal na ñu bare goor ñu bare ño xamni ma leen wajalal sama bop formé leen lo ci jankontel ci ciona rek ñoom itam jankontel nañu ciona bu tollu lo ci man yene ñep yiw taxul ñep am yiw yene ñep jup taxul ñep jup yene ñep bax taxul ñep bax e sa yow jëkku mako ci yow yabalé na ci bataille ah. Ah. ci yabal ci ay goor waxuma yaafus da ay goor ñi def ci lañu man ay lo ci man ah afalam yasiru fil ardi waaw ñii ngay wax guddeeg bëccëg ak ñi nar a ñëwi ëllëg afalam yasiru fil ardi fa yanzuru kayfa kaana aqibatu alladina min qablihim waaw ah waaw waaw waaw xanaa tukkiwunu xanaa jàngunu xanaa gëstuwunu ah xanaa tukkiwunu xanaa jàngunu xanaa gëstuwunu waaw ñu fekkee ñu nettali leen waaw ña leen jiitu woon aqibatu alladina min qablihim fanu mujje waaw ñi defoon yiw waaw fa yiw ga mujjeeg ñoom xanaa kenn nettaliw leen ko waaw ñi defoon safaan fa safaan mujjeeg ñoom xanaa kenn nettaliw leen ko Hein Wow. Hmm? santaane la yàlla daf la bëgg wax ni la ubbil sa xel waaw ubbil sa bët waaw jàngal gëstu laccel ñu nettali la waaw ko defee nag waaw waaw buñ la waxee ña defoon yiw fa nu mujj ña def safaan fa mujj da nga xam ni wala daarul axirati xayrun lilladina taqaw allahu akbar xayrun lilladina taqaw liggéeyal ëllëg waaw pour boo taxawee ci kanamu yàlla bañu ruus waaw moo gën de moo gën de liggéeyeen ëllëg pour boo taxawee ci kanamu yàlla bañ a ruus moo gën waaw ah, kon liggéeyal alaxira waaw ah, moo ëpp doole téeméeri junni yoon àdduna war la ba ngay ngër ngëri waaw ah, ba mu jaral la nga éliminer ñëpp pour lan pour nguuru jaral la nga éliminer ñëpp pour lan pour ñu ni yowaa ah, yaa fi nekk waaw ah, tëral pexe tëral pexe nas mocc dugg génn fàtte ni ëllëg am na tey rek moo nekk ci sa kanam tey àddina rek moo nekk ci sa kanam ah, mu ni yonent bi loo ci man <laughs> hmm? ko loo ci mën waaw ah, ah, waaw ah, yonent yi ma yónnee yëpp waaw waaw seen jan wàcc na def nañu effort bi leen war ñoom ñëpp waaw wax nañu ne déglu leen waaw waaw ñu ni jàmm ñu ni jàmm la waaw ñu ni bu leen àdduna war waaw fexe leen liggéeyal àllaaxira mu ni waaye loo ci mën dem nañ ca ba ñu weddi leen mbëllee leen ñaawal leen lu nañu wax leen ko ca waaw xatta ida tay asa rusul wa dannu annahum qad kuhibu waaw jaahum nasruna waaw ci ñu dem ñu ñaawal leen mbëllee leen ba ñu désespéré ndeysaan waaw waaw jàngale nañu waare nañu yeete nañu ba désespéré jàpp ni nit ñi dootuñu nangu jàpp ni ñu leen di wedd daañu am dëgg ci seen kaw ndeysaan ah ndax rekk eh, ma mel ni ku tànkam lu di seetaan te déedéet seetaanuma maa ngi ñëw dama yàkkamtiwul man yàlla ah, waaye ba ñu tolloo foofa nag jaa ahum nasruna waaw ah, ah, ci laa intervenir man yàlla waaw فنجي من نشاء waaw waaw فنجي من نشاء ah ah ah ñi ma wóor ni yiw la nu ëmb ah te ma fas leen yéene bay yu ñuy jëw ah ma sauvé leen ah ah wala yu raddu ba'suna anil qawmil mujrimin ya nga xam ni nag ay criminel pire lañu ah ah nee na ma fudd seen ndigg waaw te kenn du atte waaw wala yuraddu basuna anil qawmil mujrimin waaw waaw bu ma leen koy def kenn du atte ndax kenn ñemewul atte kon nag mu ngoog yow yonent bi laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab waaw nettaliw la ko kese kese rek waaye dama bëgg mu nekk leçon waaw li ulil albaab li ulil albaab ma bëgg mu nekk leçon waaw pour ñu bëgg ràññetle mujj yiw ak mujjuk safaan waaw mën ci tiire waaw yu rëy waaw waajal ci seen bopp yiw ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ده waaw ah, nekkul comme seen série yi ngeen di def rek wut ay nit ku ne ngeen jox ko rôle mu joué ko rek mu nekk théâtre déedéet <laughs> déedéet réalité la de lay ndeysaan waaw ah, ma kaana hadisan yuftara <laughs> ah, def sa scénario rek ndeysaan waaw waaw wut ay rôle ku ne nga jox ko waaw seet ka nga yéene ndam mu mujje ndam le déedéet ma kaana xadisan yuftaraada ah waaye ah, ah, lu amoon la lu fi jaaroon la lii ñëw di ko dëggalaat la ilaha illallah ba àdduna sosoo ba nëgë safaan la waaw ah, àdduna sosoo ba ku jëf yiw am yiw ku jëf safaan safaan dal la waaw ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه دا فا نيو بور دغال بور كونفيرمي رك ني جيتو وون لا ني دان واخ اك لا ني دان ديف وتفصيل كل شيء ها dimbali nit ñi nak bañu distingué ah bañu ragnat le takat le gënte yiw ak safan ha ah, wa hudan waaw jële ci ndimmal lu ñu orienté woo day sànn waaw wa rahmatan dajeeg sama yërmande man yàlla nag waaw ma jagleel ko li qawmin yuminuun ah waaw waaw rahmatan li qawmin yuminuun waaw waaw ku ku ku ku ci tiire leçon rek waaw def effort fas yéene sukkandiku ca pour waajal sa ëllëg ci yiw la neena ma gunge la sama yërmande han ma dun ma gunge la sama yërmande fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kon nag alxayru yabqa wa in taala zamaanu bihi wa charru axbasu ma awayta min zaadi waaw ah waaw bëgg yóbbal bu diis nga xam ni boo demee ca yàlla waaw ah, demee ci yàlla du tumuranke waaw jëlal yiw nga fas ca yéene wut yóbbal waaw ci que yéene yi wuti yóbbal waaw foo koy yenneeku ñëpp ñee la waaw waaye ku bëgg nag yóbbal boo xam ni boo koy yenneeku jéppi sa bopp ñépp yedd la waaw waaw seetal safaanu yiw nga wut ca yóbbal waaw waaw waaw waaw wa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin آه، فإن بيني وبين بني أمي وبين بني أبي لمختلف جدا آه، إن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا آه، وإن زجروا طيرا بنحس تمر بي زجرت لهم طيرا تمر بهم سعدا waaw ah, sang pire ko wax ni kaay leen ma wax leen waaw ah, kaay leen ma wax leen ah, sama digganteeg samay bokk nan lay dundeeg ñoom waaw waaw in akalu laxmi wafartu luxumahum waaw wa in hadamu majdi banaytu lahum majda waaw leen bu ñu dee wut lu ñaaw di taqal sama der man may raxas seen der pour mu set pour kenn bañ di seen ñaaw ah waaw mu ñu gàddoo pik ak marto pour daaneel sama miiru tedd nga nee na man ma wut ciment wut fer wut béton wut suuf wut ndox pour tabaxal leen ñoom miiru tedd nga waaw ah, ah, waaw ah. nee na bu ñu naawalee picc mu aay gaaf waaw jëme ko ci man waaw pour lor ma waaw ma wut picc ma gën a rafet gaaf xaw ma gaaf ngeen koy wax xaw ma waaw nee naawtal ko jëme ko ci ñoom pour ñu tedd ba faw waaw koy sang waaw waaw mooy sang fa tabaarakallah ahsanul xaaliqin waaw Yuusuf won na ay bokkam ñu leen may seen sang te waxu leen ko waaw bu defee nag addunaa ngoog waaw addunaa ngoog waaw famille bu jàmm am na fa bu amee it man xaw ko réew mu ñu ni jàmm am na fa cent pour cent amul waaye nag waaye nag su la yàlla seppee ci biir ci sa biiri bokk jox la xam-xam bu nu amut jox la xam-xam bu nu amut ku ñëw fekk la ñu lay atteeg ñoom dañu la jiñ ni borom xam-xam nga waaye do borom xam-xam waaw dañ la jiñ ni borom xam-xam nga waaye do borom xam-xam ndax ku yàlla jël la gën ca famille jox la ko hein nga war a gestu nga war a gestu nag ñu lay atteeg ñoom waaw bu ko seq ak ñoom seq ko ña nga tollal آه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما آه، جلجن جن جخلكو آه، تمودي خم خم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كو يال ييكتي با تي كاو ول بتيغو نيو فك لاغا واتي تي سوف دي خولوك ني رام ها يال جيبي لا كو فك تي فامي ولا تي ريو jël la say bokk yépp bëggoon muy am-am di alal yàlla sedd la ci lu mu leen séddul bu yàlla wëlbatikoo fekk la ngay xiiroog ñoom di ŋaayoog ñoom mu jëppi la ah foo koy teg ah foo koy teg ah ku yàlla jox xel mu mu joxul say bokk ah nga war leen gérer ci sa xel waaw ah, sëñ Cheikh nee na boo nee diw amul xel. dugg nga yow ma am xel yaa ko war a gérer ci sa xel waaw waaw yàlla joxe xam-xam say bokk amul jox la am-am say bokk amul jox la xel bi say bokk amul waaw sant ca yàlla sant ga nag du toog naan alhamdulillahi rabbil alamina déedéet waaw sa xam-xam yóbbaale ca ña réer waaw sa am-am yóbbaale ca ña ñàkk. sa xel yébbale ca ña seen xel matul waaw looloo cay sant yàlla sunu boroom waaw ndax nag li nga leen teg dafa diis li leen teg dafa diis waaw jël ci famille la ca gën ah, teg nga leen lu metti boo ko yëgee boo ko yëgul waaw kon nag jéggale te jël la yàlla di xaar ci yow fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiin comme ni ko yont yàlla yusufa alayhi salaam defe ah 88 628 10 95 88 628 10 95 بسم الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه يلا يلا amiin yaa rabbal alamin man de wax dëgg yàlla am na lu ma réeroon ci sama bopp. waaye sa waxtaan bi gindi na ma. alhamdulilah. billahi. am na ñu ma réeroon ci sama bopp man sama bopp de. waaye wax dëgg yàlla sa waxtaan bi daf maa gindi. alhamdulilah. wax dëgg yàlla. lii lañ soxla ci jàng. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لا لا لا. الله يلسان الله. ما شاء الله. moom lañu yàlla sàkk balaa nga si allahumma amiin allahumma amiin rajo bii daal. Mhm. képp ku koy ñuy déglu. Mhm. war na saa yu yeewoo ñaanal ko sutura. dëgg la. ñun nag loolu la ñu am nag. dëgg la day na sëkk wallaay. wallaay na Seydou Nourou Tall. radiyallahu anhu. Eh, ak Cheikh Omar Foutiyou. Mhm, radiyallahu anhu. ak ak ak ak maam. sama maam laaj. wallaay ndeysaan. ci naan na xel mat day. Eh, fa tabaarakallah ahsanul xaaliqiin mbokki auditeur ak auditrice yu rajo Safina FM yi àndoon ak ñun ci émission bi yegsi nañu ci fi nu war émission bi fa tabaarakallahu li ñu amoon ci waxtu jeex na seen mbokkum taalibe alxaaji Abdoul Aziz Fall moo ne woon ci daara ji nu nu yàlla defal mucc ak muccule wér ak wérale dund ak dundule allahuma arham ibadaka wa biladak وصلى الله على الرسول وعلى آل الرسول والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته